defee mu mokkal téere téere bu tàdd bi mu alquranul karim li ci aju lépp danañ ci ñëw ci kanam ci ak leeral waaye ngir bañ a guddal duñu def lu may jox kàdd gi sëriñ Fadilu Njaay di rek sëriñ Xaadim Njaay mu jël kàddu dalal gan ñi ci turu sëriñ Xaadim bu ñu noppee ñu jàng alquranul karim wéyal programme bi ñu ngi sàkku ci sëriñ Yeddaali Ñas ak sëriñ Moustapha Ndiaye ak sëriñ Fadil Ndiaye ñu jege si sëriñ Yeddaali Ñas ñu ngi sàkku nga jege si kon ñu jox sëriñ Fadilu Ndiaye mu def kalimatu tarxib bi ñu doog a dugg ci programme bi incha xam ngeen ne waaw ñoo ngi leen di yaatal yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di tatagal euh, di leen euh, massa ci seen coona ci ñëw bi ngeen wuyu si sëñ Xaadim ci fekkee jataay bu tedd bii nga xam ne mooy jataay yi gën a kawe ci jataay yi la bokk te moo di teral saaxibul quraan ndaxte dañ koy dool leetaral waaye innama nukarrimuhu lima akramahu llah wa nuqaddiruhu lima qaddarahu kon ñun dañ ciy dolli rek waaye yàlla teral na ko ba noppi mu bokk ci ñu nga xam ne ñu njëkkee ci daa jàng ci daari tanzil la te ñu jàng ci daari tanzil mu jiitu leen fi ak ñi ko topp ginnaawam nekk nit ñu baree baree bari ay mi'aat ay téeméer ñoom ñëpp mokkale fi téere bu yàlla bi mokkal gu rafet euh, ñu wattu ko wattu gu rafet euh, kon bu ñu doon euh, te yaakaar naa ne bu ñu doon teral mbooleen ñi fi jaar yaakaar naa ne dana aaje ay weer wala sana waaye Cheikh Abul Baraka dafa nekk nit ku tedd koo xam ne Eh, alxuraan daf ko doollee teral ndax nekkoon na ku am solo ci daara ji nekkoon ku farlu eh, te mokkal téereb yàlla bi mokkal bu rafet wëlbatiku daaru tansil jàppale ko ba mu dem keer jàngi ba mu demee tànn li mu tàmbalee woon te mooy alxuraan ndax mooy njëkk mooy mujj mu jàng alxuraan ci njàngin wi nga xam ne mooy jàngin wi ñu miin a jàng fii di riwaaya warsh jàng xam-xam yi ci aju ba man koo jàngalewaat man cee samp daara man cee liggéeyal yàlla subhaanahu wa taala liggéey boobu di yiw wu mag mag a mag wuy yiw wuy continuer ñeel daaru tansil ak moom kon ñi ngi leen di xamal ne bis bi bis la boo xam ne mbokk yi eh, bis mënu koo gën a rëy mënu koo gën a tedd programme bi dafa xat lool ndax dañoo yeex a moo tax duñ mën a guddal liñ war a wax ci wàllu boobu duñ ko wax waaye ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne ku ñu bindut wala présenté wuñu la moom bind na la gis na la yàlla na yàlla fay la say jéego yi ñëw ak dem incha allah أمرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمر فسوف يعلم يستبق من أمة yàlla yàlla guddal sa fan mbokk yi xam naa ngir njëkkante ba léegi rek ak jataay bi ni mu tëddee waxtu yi bañ a ñoo jàtt mu ëpp dañuy wéyal rek programme bi di sàkku ci beneen nattu ngoom muy Serigne Moustapha Ndiaye mu jege si moom it jàngal ñu diggante bu gàtt incha allah kum doon rek ñu gàttal njàng mi ndax alxuraan ji moom kenn dëkku dul ñemee dagg moo tax rawat na ni mu jaare yoon ni mu neex macha allah kon ngir ñu wéyal mm, programme bi rek ñu sàkku ci Serigne Moustapha Ndiaye mu jàngal ñu ab diggante incha allah taala mbokkoon ci ñi xam ne ci fii ci daara ji fi la ñu jàngee bi mu fi jàngee ba noppi it mu wéel alliwaam e, ci geneen wet gi waaye nag dem ba am ci ijaasa yi lijaasa yi nga xam ne moom lañuy ñuy sàkku e, ca e, xëy na ñenn ñi jaar ci yoon yu yàgg-yàgg ngir jot ci te moom ay raccourci la ci la jaar ci alquran moo ko may loolu danañ ñëw ci kanam incha allah taala ci CV yi nga xam ne danañ ko présenté boobaa danañ danañ ci leeral njaboot yi nga xam ne jaar nañ fii ci xale yi ba noppi yàlla defal leen tawféex lool bañu ñu demee ci wet ya ca des di ca yëngu da leen ci yàlla defal ci tawféex incha allah taala nañ ko euh, wax ci kanam bismillahi rahmani rahim inna ibrahima kana ummatan lillahi qanita walam yakun المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين euh, kon ñu jàpp ne xëy na daara moom jaar ca dana euh, baat boobu sax daanaka day ëpp di wax ñoom dañ koy faral di wax waaye ëpp nay wax euh, ci nit waaye daara moom day day yokk day yokku nit day dolli nit day gën a réyal ndamu nit waaye lenn luy nuru safaan bi moom du feeñ ci ki jaar ci daara lii nag mandarga la ci e, kon kii moom mm, ba muy jàng Word ak eh, Access ak mm, Excel ak ci moom alxuraan ji réerut ca bidon ya eh, alxuraan ji réerut ci machine ya waaw góor loolu moom moo loolu lañ ci jublu nag ci ci ci ci wanag yi kon jërëjëf sëriñ Moustapha ci alxuraan ju neex jooju kon sëriñ Fadilou Ndiaye moom la ñuy sàkk mu ñëw jàngal ñu alxuraan incha allahu taala ñu daal di wéyal ci programme bi sëriñ Fadilou Ndiaye moom it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 فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون